seen seen gouvernement mhm. man yow xam nga ne man man bu may critiquer man j'ai pas de sentiment je pense que loolu am nga lu tuuti loo ma mën a seedeel mhm. man je mâche pas mes mots je je pas demi mot je man euh, euh, nekk ak ñoom mhm. yow sa liggéey lii la mais kenn du la jël di la jox pétrole bi wala di la jox euh, finance wala di la jox leneen ak leneen ñoom li ñu gëm la woon sénégalais mais un ministre poste boo koy mënti jox jox daf ko war a mën wala daf ko war a xam. ils ont parlé de compétence. lu ko compétence ça pas dama ne la ñoom loolu la wax. dama ne la loolu la wax dañ ne. Mhm. santé da nga koy jox ku jàng santé. foofu loolu gëmloo sénégalais yi. da nga armée da nga koy jox ku jàng armée. Mhm. pétrole da nga koy jox ku jàng pétrole Birame Souleye lañ jox pétrole yi jàngu ko xamu ko kër la xam ak suuf. Euh, xale bi El Malick gone gi liñ ko jox xamu ko terre mer ciel xamu ko mhm. kon ñoom la ñu waxoon démb nit ñi man li ñu wax gëmuma ko de man xam naa ne loolu du même com compétence effectivement waxuma sax diplôme man compétence laa wax. solo gëmuma diplôme man ndax ndax nit jàng na fi ba yooyu tam nekk dof mënta gérer dara. Mhm. nit jàngul xamul aani bee di gere ñi jàngul ñoo fi tabax immeuble yu baax yi ñi jàngul ñoo fi gere société yi jël ñu jàng teg fa. foo bëgg a ñëw. non pour wala ne nii ñu def tey man d'accord naa nga jël El Malick wala Birame Souleye teg fa mais ñoom dañ doon contre loolu nee na ñoom ñett la ñett lañu wax bi ci njëkk mooy euh, da ngay compétence da bi mooy dañ lay wóolu nga jub ñetteel bi da ngay bëgg sa réew am engagement mais Ousmane mais Sonko bu wanee ne wóoluwul El Malick wala wala wóoluwul Birame Souleye wala wóoluwul euh, la femme la Maïmouna Dièye loolu waxi dof lay doon ñoom ñooy ànd léegi leer na ko ñooñ dañoo jub